asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax euh, ki mbokk mi nuyoo yéen nag mooy Omar Fall ndongali Omar Fall taalibe Sëriñ Mahamadul Bachir moom Sëriñ Abdul Xaadir waaw di président daayira bu Sëriñ Abdul Xaadir bu Sëriñ Bachir moom Sëriñ Abdul Xaadir maa leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm di ñaan kàddu yi may wax fekk ñëpp ci jàmm waaw di. am tuuti lu ñu uh, sàkku ci nit ñi rek di ko sàkku ci mboolem jullit ñi di ko sàkku it mboolem ku nekk ci réew wala nga nekk ci bitim réew muy kàddu yi nga xam ni journaliste yi li ci dañ koy yëkkati di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir wala ñu mel ni moom ci sëti Serigne Touba ñu di ñaawlu kàddu yi nga xam ni dañ koy wax te teguñu ko fenn ndax boo xoolee li ci ëpp ci ñuy wax la ñuy wax xamuñu ci dara teguñu ko fenn ñu jàpp nag ni kilifa jàmbur moom kenn du ci nekk rek di def loola neex wax euh, saa yoo ko bëggee wax ko bu ëllëgee rek nga yagar yagar dem naan damay tuub ak yooyu loolu moom dootuñu ko may kenn képp ku nga xam ne waxati nga ci moom loo xam ne waroo koo wax ci moom Cheikh Mouhamadul Bachiru foo nekk jekkal danañ la fa fekk te danañ ko jëf leen yow lii ñuy def nag du sëñ bi def lowuñu ko dañoo amub cër boo xam ne dañ ko am ci moom yaakaar ko àddina ak àllaaxira yemale wuñ ko dara itam nag képp koo nga xamante ni waxati nga yenn kàddu yoo xam ne teggin wut ci moom foo nekk bon nga jekk waaj te xam ni foo nekk dana la fekk koo mën a doon nag ak ku la mën a juróom foo mën a bokk jàppal ni fa nga nekk dañ la fa fekk te it nag xalaatuñ ci dara dawuñ ci dara bañuñ ci dara itam nag lii ñuy defit nag du ndigal luñ jël ci kenn day loo xam ne luñ moomal suñ bopp la ndax i taalibey sëriñ Tuubaa lañ di taalibe yaakaar kër sëriñ Abdu Xaadir muy suñ bunt sëriñ Abdu Xaadir mu liggéeyal maam liggéey boo xam ne tam ku naa fekkut bonoo doon nit koo xam si ni ku yàlla baaxewul la teg nga ci sa bët ba cegul dara kàmm ku mel noonu nag bu seetaan mukk mukk mukk ku nit ñu tekkiwul dara di yëkkati ay kàddu yu di ko sof tuur fu ñu toll rek di ko wax ci moom te muy muñ di muñ di muñ di muñ bu demee ba mën a muñ moom nag moom moom moom moo mën a muñ waaye ñun moom mënatuñoo muñ képp ko nga xamante ni daal yaa ngi waxati Cheikh Mamadou Bachir jàppal ni li nga looy wax ci moom taalu bi nga koy wax te ñun ñi nga koy waxal de ay donga lañ yoo xam ne lu bare bare bare mën nañ ko faj Euh, maa ngi ñaan itam sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal sëriñ Abdul Xaadir yëpp bokk ak ñoom bokk ak ñoom kër sëñ Ba surtout nga xam ne mooy suñu bunt Euh, ko ci nekk kenn ku ci nekk maa ngi lay lancer appel bi di xamal ne képp koo nga xamante ni bii ne déggati nga ko wax dara ci sëriñ bi loo xam ne méngoowul ak li nga xam ni moom lay doxee méngoowul ak jëkkoom foo ko mën a déggee na nga ñu dimbal ngir yàlla gi mi sëñ wax ñu ko danañ ko faj danañ ko faj danañ ko faj te duñ ci seetaan duñ ci seet dara nag duñ ci déglu dara itam loolu daal maa ngi koy maa ngi koy maa maa ngi koy wax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal kër gi ñëpp di ñaan itam ñi nga xam ne dañuy yëkkati kàddu itam kenn ku nekk kàddu bala nga ko yëkkati na nga xam kàddu gi ngi yëkkati boo ko daanelee fu muy jëm ak lu mën a defar ak lan la mën a yàq ndax wax dañu wax ni micro boo ko téyee Euh, da nga wax ba yeew ñi ngay waxal mbaa boo ko téyee da wax ba yeewlu sa bopp yow sa bopp lépp ci ñiy wax nag dañuy yeewlu seen bopp toujours ndax da ngay wax loo xam ne ay demaleek fekkee la rek yoo xam tegoo ko fenn nit ku tekkiwut dara nag mënut a fekk ku tekki dara mu bëgg ko indi lay foo fekk lu yëmbul foo fekk lu yëmb nag ñu yëmbu ko yàq te journaliste yi dafa bari ñu yëmbul ñoo xam ne xamuñu métier mi jànguñu ko xamuñu ko dara newul seen ginnaaw lu may ay nit ñuy làqatu leen jox ab xaalis ñuy teg ci gor ñu baax ñu lu ñaaw loolu mënatul ko may kenn sëñ bas ku ko a def na nga ko def feneen waaye sëñ bas moom ko defati foo mën a ne foo mën a dëkk ak ku mën a yilif ku ne jàppal ni foo